buum gi nga xam ne day yeewu xarum tabaski buum googu soo ko amee soo amoon tey góor goo xam ne day faral di di moy maanaam day faral di moy ñu wax njaaloo mbaa nga bañ mu def ko mbaa nga xam mu di ko def soo fexee ba dagg ci takkal ko ko insha soo amee jigéen ca bañ mu ñu jëfandikoo ci jëfandikoo jëfandikoo ko ci lu mel noonu dugg ci lu mel ne jaaro bi moom it insha allah boo ko wutee takkal ko ko yàlla dana def du ko def su koy defit soo ko takkalee insha allah dana ko bàyyi bu dee ci ndox mi nga xam ne moom la ñuy taajal xar mi laataa ñu koy rendi mu di ci naan wala ndox mu doon naa ne laataa ñu koy rend mu des fa soo ca tàngee bépp jigéen boo xam ne daa toll ci mucc maanaam am doom soo ko joxee mu naa waaye ci biir bi wàcc ci suuf insha allah dana am doom ci kenn di ko opéré naka noonu bu dee ku yore biir buy metti su ci naanee dana ko dana ko saafaraal bu fekkee ne eh, eh, eh, fees nañ ko ba noppi boo daggee ca reso bind ca mudd hamataani samp ko ci ab paaka lakk ko ci taal nga xam ne paaka bi ngay séntu ci taal bi ba ndawal gi ñaan nga lekk ko noonu ci paaka bi insha allahu bu ci yàlla àndee deesu tura jam paaka mu dugg maanaam da nga am li ñuy wax tul naka noonu der bi buñ ko naka noonu uh, kii bi uh, wextaan bi soo ko amee toqal kaas képp kuy amee uh, ku amee mettitu xol boo ko jëfandikoo insha allah yàlla mën na koo saafara dana ko saafara naka noonu der bi buñ ko dendee bant yooyu ñuy dénd der bi mooy yéen koy daaje mu wër ba der bi mën a tàlli lépp jigéen joo am muy fay mbaa képp ko am muy génn di dem ca dem bi neexu la soo xoolee juróom-ñaari tànk yu dox ci kër gi tànk mu ne nga daaj ca bant ba mu ba mu ba wala benn bant rek ba mu sal insha allah dootul génn ab génn dana néew lool dootul génn ba tey bulik xar mi mooy bulik yi ne ci xar mi soo ko weeree ba boobu nga denc ko képp koo xam ne am na li ñuy wax wax ñu koy wax asile su ko takkee suñu borom dana ko uh, saafara naka noonu bëjjën bi uh, soo ko amee am na lu ñuy bind maa loolu da koy jéggalu sox ko ci moom it fépp foo ko def insha allahu deesu fa sàcc kenn du fa naka noonu deru xar mi ci boppam soo ko dëndee ba mu baax nga di ci toog di wird day maye ijaaba maanaam loo ci toog ñaan yàlla dafa koy nangu waaw yàlla da koy nangu kon mu mel ne bari na ay njariñ lool wax dëgg yàlla bari ay njariñ loolu xañ na sax loolu lu ñu ci tënk la waaye mënoon nañ cee ba mënoon nañ cee indi lu ëpp loolu seen mbokk sëriñ Lamp Jaxate moo leen ko doon baaxee di jéggalu bu baax nag doomi soxna yi boroom xam-xam yi euh, bu fekkee ne dë euh, wuute na am ñoom ci euh, seen nan ko xamee di jéggaloot ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu